bismillahi irrahmani irrahim allahuma solli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima axliq walxaatimi lima sabaq naasiri ilxaqi bilxaq walhaadihi ila siraatika almustaqim wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim qaala alimaamu abdulbaari alcashmaawiyu rahmatullahi alayhi baabu solaati ljanazati liile buntab jullik néew la jullik néew mbokk yi nañ ko ci at mu njëkk ci gàddaay yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci madina nee na wa solaatul janazati jullee néew fardun farata la alal kifaayati cig doy julley néew niki sang ko ak suul ko yépp ay farata kifaaya lañ jàngoon nañu ne julli juma fardu ayn la waxoon nañ différence bi digganteem ak fardu kifaaya fardu ayn mooy loo xam ne yow rekk yaa ko mën a defal sa bopp ni ki julli juróom kenn mënul laa jullil niki julli juma kenn mënul la defal fardu kifaaya mooy loo xam ne su ko ñenn taxawee mu wàcc ñi ci des ni ki jullik néew gi ñuy jàng jullik néew na <clears throat> du ku dee rek lañ koy defal am na ñoo xam ne jullee leen xaraam na ni ki aji dee ci xare ki dee ci xareeb lislaam ci yoonu yàlla araam nañu jullee ko araam nañu sang ko ndax deewuñu axyaaun inda rabbihim lañ leen di jàppee loolu lañ ñu ngay dund ca seen borom moo tax duñ leen jàppee ku dee dañ leen di suul ñoom ñi nga xam ne ci xare lañ dee bu dee ku judd te takkuwul yaana yuuxuut kookit sip nañu <clears throat> ku ko jullee wala koo xam ne li ëpp ci ay cëram gisuñ ko bim dee kokit ci suñu madhab sib nañ ko ko jullee man fuqida man fuqida aktharuhu aha mu ne wa arkaanuhaa ponki julli néew ponki jullik néew arbaatun ñeent la liñ sukkandiku nag mooy juróom la waaye mu indi ñeent ngir ne juróomeel ba des ca wuute mhm. bu njëkk ba mu ne an mooy yéene wa arbau takbiratin bi nga xam ne des ci wuute ñu njëkkee ko bokk mooy taxawaayu julli néew ci taxaw jullee néew taxawaay ba ndax ponk la wala du ponk des ca wuute mu ne an yéene wa arbau takbiratin ak ñeenti allahu akbar wa duaau ak ñaan baynahunna seen diggante diggante kabar ya wasalaamu ak sëlmal buy ñaan nag mu ne wa yaduuna ñaan bi ma tayasara lu jàppandi na ñaan lu jàppandi kon ñeenti yi ñooy ñeenti ponk yi ñeenti kabar gannaaw yéene yéene <clears throat> bëgg nañ mu teewlu ni li muy def farataay kifaaya la su foogoon ne nag ki muy jullee jigéen la fekk góor la wala mu foog ne ki muy jullee góor la fekk jigéen la bum ca mënoon a yéene ci njuumte dafay wér su foogoon ne it ñi muy jullee ñaar lañ gannaaw bu mu jullee ba pare mu gis ne kenn la julli ga wér na waaye su yaakaaroon ne kenn la bañ jullee ba pare mu xam ne ñaar lañ julli ga des koy baamtu ñeenti kabar yi su ca benn manqué ci tey julli ga yàqu su juumee mbaa ak réeree tax mu manquil ko na ko indi ndem jege na su fekkee imaam dafa yokk ci njuumte walla cig réer maamoom yi dañ koy xaar ba mu sëlmal waaye ñoom duñ yokk suñ ko xaarut sëlmal seen julli wér na moom it jullim wér na su fekkee dafa yokk ci tey sib nañ ñu xaar ko suñ ko xaaree it seen julli wér na ndax kabar xamewut manzilatu ay rakaa ci anam yëpp sopp nañ it yëgati ñaari loxo ci kabbar gu njëkk gi mooy bi ngay dugg ci julli gi waaye lu dul ci kabar gu njëkk gi nag yëgati ci ñaari loxo xilaaful awlaa la mhm. yéene ñeenti kabar ñaan ci diggante kabar ya ak sëlmal mu ne nag nga ñaan lu jàppandi wastaxsana rafetlu na nag ibnu abi zeydin ibnu abi zeyd fi risalatihi nga xam ne <clears throat> fiqhum yeggoon na ci ñu koy tuddee malik mu ndaw borom risala wax na ci risalaam ne rafetlu na an yaqula ba wax kii jullee néew ne alhamdulillahi alladi alhamdu sant lillaahi ñeel na yàlla yàlla mi nga xam ne amaata moo rey waaxyaatam dundal walhamdulillahi sant ñeen yàlla mi nga xam ne yuxyi mooy dundal almawta way deey maanaam leen di dekkil loo ñeel na ko al azamatu màgg moo am loo wal kibriyaaw ak rëy wal mulka ak nguur wal qudratu ak kattan wa sanaa u ak kawe sanaa bu ñu daggee cekkantu ga mooy leer buñ indee hamza googu mooy kawe wa huwa kulli shay'in qadir allahuma yow sama borom mi ci tur yu uh, rafet yi ak melo yu kawe yi te mat salli yàlla na nga doole xéewal ala muhammadin wa ala ali muhammadin ak ñooñ muhammad kama sallayta wa rahimta ni nga dolle woon xéewal te yërëm wa barakta ta nga barkeeloon ala ibrahima wa ala ali ibrahima ak ñooñ ibrahim fil aalamina ci mbindeef yi innaka yow kot xamidun yaay santaakoon majidun yaay aji tedd yaay kuñ sant yaay ku tedd waaye yaay santaakoon yaay ku ñu teddal kiit tabarakta wa taalayta allahuma yow yàlla innahu jaam bi nga xam ne moom la new bi abduka sa jaam la wabnu abdika doomi sa jaam la wabnu amatika doomi sa jaam bu jigéen la ante yow xalaqtahu yaa ko bind wa razaqtahu nga wërsal ko wa anta yow amattahu yaa ko rey wa anta yow tuxyihi yaa koy dekkal wa anta yow aalamu yaay aji xam bi sirrihi biiram wa alaaniyatihi ak bitiim ji naaka dikkal nañ la shufaa lahu di ko tinul fa shafi'na fiihi yal ci moom yal na tinu ko ngir eh, anaam rus rek ba liñ bëgg ci moom nga defal ko ko allahuma yow borom bi inna naka nun nastajiiru ñu ngi sàkkoo kaara ñu ngi xaaroo bi xabli jiwaarika ci sa buumu karange lahoo ñeel ko ñu ngi wujj sàkku nga xaar ko ci sa buumu kaaraange innaka yow doo wafa in yaay borom ak matal wa zimmatin ak kollale warhamhu maanaam mu ngi mel ni ku sàkku ci yow nga xaar ko yaa ko digee te nañ ko kon nag ñu ngi lay ñaan yow mi nga xam ne loo digee def ko nga def loolu warhamhu yal na nga ko yërëm waaw yooyu yëpp xeetu toroxlu la wa afu anhu yal na nga ko baal wa aafihi nga jàmmal ko wa akrim yal na nga teral nuzulawo wàcc waayam muy nganam fa yow wa wasi <coughs> wa na nga yaatal madxalawo dugguwaayam waxsilhu nga sangee ko bi maa in yal na ko sange bi maa in ci ndox wa hëljin ak galaas wa baradin ak sedd maanaam bu xam benn méttit ak tàngaay wa naqihi yal na nga ko setal min adunubi ci bàkkaar wal xataayaak ñëwti ñaawteef kama yunaqaa naka ñuy setalee niki ni ñuy setalee athaw bu yëre labyadu bu weex min a danasi ci tilim yëre bu weex tàll tilim bu nekk ci niñ koy fóotee ba mu set ba weex tàll yal na nga fóotee jaam bi noonu ci bàkkaaram wa abdilhu yal na nga ko wëttal daaran kër xayran gu gën min daarihi kër gam newoon àjjan àdduna wa ahlan ak ñooñ xayran yu gën min ahlihi wa zawjan ak jabar xayran gu gën min zawjihi ci jabaram ñooñ yu gën ay ñooñam ak jabar yu gën jabaram aha allahumma yow buur in kaana ndem nekkoon na muhsinan di aji rafetal fasid fi ihsaanihi yàlla na nga yokkal ko ci rafetalam wa in kaana su nekkoon musiyan di aji ñaawal fa tajaawaz yàlla na nga baal Eh, sayyi'aatihi ci ay ñaawteefam su fekkoon ne koo xam ne fa doon ñaawal yal na ko baal ñaawteefam aha allahuma yow buur qad nazala jaam bi wàcc na bi ka ci yow wa anta yow xayru mansolin yaay aji tedd ji gën ci ku ñuy wàccal ngan bi ci moom képp koo xam ne danañ wàcc ci moom ngan rek yaa ci gën kii nag ci yow la wàcc ngan tey faqirun aji xaajowoo la aji aajowoo la ilaa rahmatika sa wa anta yow ganiyun aji doylu nga an adaabihi walis mbugalam moom soxla na sa yërmande te yow mbugal ko du la jëriñ dara nag ñu ngi lay ñaan nga yërëm ko te musal ko ci sa mbugal allahuma yow buur hëbbit <clears throat> yal na nga saxal ko yal na nga saxal indal masalati fa laaj ba bi ko nakiir munkir di laaj yal na nga saxal mantiqahu tuddam ba mu wax laa ilaha ba buñ ko laaje kuy sa borom mu ne yàlla kuy sa yonantu mu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam luy sa diine mu ne lislaam luy sa téere mu ne alquran mu texe aha wala tabtalihi wala tabtalihi yàlla bul ko nattu fi qabrihi ci bàmmeelam bi maa loo xam ne laa taqata lahu du attan laa taqata lëxoo laa taqata dit kàttan lëxoo di ko ñeel bii ci moom bu ko teg mukk lum xàttanut ci uh, bàmmeelam yàlla bul uh, ko musal ci mbugalam bàmmeel mm-hmm. waaye yooyu yëpp uh, mi ngi ci alquran shaqiq rahmatullah alayhi <coughs> nee na naa jawaaba munkarin wa nakirin fa wajadnaahu fi qiraati alquran mu ne tontu gi ñu war a tontu Nakiir ak Munkar biñ ko wut nañ ko fekk ko ci jàngam alxuraan képp koo xam ne bëgg nga Nakiir ak Munkar buñ la laajee nga mën a tontu del jàng alxuraan leeru bàmmeel ba doo am nattu doo fa am mbugal mu ne fekk nañ ko ci julli guddi képp ku bëgg a mucc ci lër lëndëmi bàmmeel ak nattu ya bëgg a am leer ga del julli guddi mu ne nu ñuy def ba jéggi siraat duñu am problème mu ne biñ ko wutee fekk nañ ko ci xoor ak joxe sarax naka la di def ba am keru arash mu ne ñu fekk ko ca wéet jambi bi wéet ak boromam tabaraka wa taala wa alxiqhu yàlla na nga ko yéegee bi nabiyihi ci yonantam muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allahuma yow borom bi laa taxrim naa yàlla bul ñu xañ ajrahoo yoolam wala taftinnaa yàlla bul ñu fitnaal baadahu gannaawam mu ne taqulu danga wax zalika loolu bi ithri kulli takbiratin gannaaw bépp kabar wa taqulu nga wax baada ra <clears throat> baada rabiati gannaaw ñeenteelu kabar gi ñetti kabar yi njëkk yëpp nee na lii ngay wax fañ tàmbalee ba fiñ jeexalee mu ne buñ kabaree kabaru ñeenteel nag wala boo kabaree kabaru ñeenteel nga wax allahuma yow borom bi ixfir na nga baal li xayinaa ñeel aji dund suñu wa mayitinaa ak aji dee suñu wa xaadirina ak aji teew suñu wa xaayibina ak aji fàddu suñu wa saxirina aji ndaw suñu wa kabirina aji mag suñu wa zakarina aji koo xam ne góor la ci ñun wa unsaana ak koo ak jigéen yi suñuy jigéen ak suñuy góor yëpp wa unsaana ak suñu jigéen innaka naka yow taalamu yàlla na nga Eh, eh, aha innaka naka yow taalamu yaa xam mutaqallabanaa suñu wëlbatikuwaay wa maswaana ak suñu saxuwaay waaw fu ñu suñu sax yëpp yaa ko xam waxfir lanaa yàlla nga baaxal ñu wali waalidina ak ay wayjur suñu wali man sabaqanaa bil imaani ak ñinga nga xam ne ñooñu jiitu ci ngëm yàlla na nga baaxal ñu maxfiratan eh, yër njëggal azman gu dog waaw boo xam ne dafay ba faw walil muslimina wal muslimaati nga baalit jullit yu góor yeeg yu jigéen yi wal muminina wal muminaati gëm yu góor yeeg yu jigéen yi laxyaayi minhum wal amwaati ñi ciy dund ak ñi ci dee allahuma man axyaytahu minna fa axyihi ala al iman képp koo xam ne dundal nga ko ci ñun yal nga ko dundal ci ngam wa man tawaffaytahu minna képp ko faat ci ñun fa tawaffahu ala al islaam yal nga ko rey ci lislaam wa asidna yal na nga saxal ñu bi liqaayika ci dajek yow wa tayyibna yal na nga teexal ñu lil mawti ñeel dee wa tayyib nga teel dee lana ñeel ñu mooy yal nga laabal ñu laabalee ñu tuub ba bu ñuy dee duñu am problème dee it nga teeyal ko ñeel ñu mooy nga indil ñu malakul mawti ci melowu rafet bi ruuxi wa rayxaan <coughs> aha wajaal yàlla na nga def fii ci dee raaxatana noflaay suñu wa masaratana ak mbégte suñu mu ne thumma tusallimu gannaaw ga nag nga sëlmal ñaan gi daal <clears throat> moom la borom téere bi wax ne eh, ibnu abi zeyd rafetlu na ko waaye mel na ni duut ne moom la ñuy gën a jëfandikoo tey eh, ñaan gi nga xam ne moom la ñuy gën a jëfandikoo wala bokk na ci ñaan yi ñuy gën a jëfandikoo ñaan gi nga xam ne imaam Malik rafetlu na ko ci Muwatta te mooy ñaanu eh, Abu Hurayrata ga mooy gannaaw sant yàlla julli ci yonentu sallallahu alayhi wasallam nga wax ne allahuma innahu abduka wa bnu abdika wa bnu amatika yàlla kii sa jaam la doomi sa jaam bu góor la ak sa jaam bu jigéen kaana yashhadu an laa ilaha illa anta daan na seede ne yow rek ay yàlla waxdaka laa sharika laka yow kott amuloo bokkaale wa anna muhammadan abduka wa rasuluka muhammad sa jaam la sa yonantu la sallallahu alayhi wa sallam wa anta aalamu bihi yaa gën a xam jaam bi allahuma in kaana muhsinan fa zid fi ihsaani su daa rafetal yàlla na nga ko yokk rafetal yow yàlla wa in kaana musian fa tajaawaz an sayyiaati su fekkee ku daa ñaawal la yàlla na nga ko baal ñaawteefam yi allahuma laa tahrimna ajrahu wala taftinnaa baadahu yàlla yàlla bul ñu yoolam yàlla bul ñu xañ yoolam yàlla bul ñu fitnaal gannaawam bu dee jigéen la nga jigéenal damir yi allahuma innaha amatuka wa bintu abdika wa bintu amatika aha kaanat tashhadu an laa ilaha illa anta ba mu <coughs> ba jeex ni nga ko waxee woon ci euh, góor gi rek nga waxee ko noon kaana yashhadu kaana ba nga ne an laa ilaha illa anta fii nga ne kaanat tashhadu an laa ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa biha allahuma in kanat muhsinatan fa zid fi ihsaniha wa in kanat fa tajawaz an sayi'atiha allahuma la tahrimna ajraha wala taftinna baadaha ko defee eh, danañu indil yeneen i mm, détail ci bu fekkee ne jigéen la ak eh, ya ci atte ñu teg foofu suñu loxo di ñaan suñu borom defal ñu dégg defal ñu topp dundal ñu ci lislaam dundal ñu dund buñ gërëm bum gërëm moom tabaraka wa ray ñu ci lislaam fekkit ñu ngi ci xaalatu rida ñu gërëm ko moom bi mu gërëm ñu barke yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama